ñu am mbégte loolu nak taxaw fi tay di wax tout rek ci eh, lu solo ce ziar bi ziar bi nag waxte yàlla ziar bu am solo la mën na wax né dans la région de Kaffrine mooy ziara bi gën a mag ci ziar yi wala bokk na ci ziar yi gëna a mag ci ziar bi nak ñu japp ko doon 42e édition du ziara ah ñu koy fété tay samedi tombeek ñeenti fan ci wéru février atum 2023 ñu am te yalla loolu bokk ko bokki jullit yi ak bokki talibé yi waaye wax dëgg yàlla di ñaanal aussi suñu sëriñ di suñu xalif di suñu El Hadj Jamilu Ndaw yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeel wax dëgg yàlla ziyaara bi daal ñu ngi koy feete tey di 43e édition ñu koy defee fii ci Jaxaaw Saalum ñu ngi ci woo bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp. waaw xanaa di gën santaat yàlla rek ndax comme dañuy wax ni kulli nafsin saay xatil mawti foofu rek la ñu sukkandiku ba xam na yàlla moom lu mu dogal ci jaam bi dañu xam ne loolu rek la woon a dagal ci jaam yi ñu am émotion nag waaye ñu mujj am mbégte wax dëgg yàlla li ñu xaaroon ci nit ñëpp xaar ko ci julli ñun ñëpp gëm nañ yàlla xam ne wax dëgg yàlla bakkan bu mos dund rek da nga mos faatu noonu lañ ko jàppe rek xëy na am nañ émotion bu baax a baax waaye ñaan ñu ngi ñaan yàlla daal wax dëgg yàlla ñu def ko ci ñu ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilah rabil alamin tey ñaan suñu sëriñ yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe julli yëpp

li ci gën a ëpp jàll na am nañ ci vraiment réussite totale actuellement nii. waaw collaboration bi aussi wax de yàlla ah, comme d'habitude rek niñ ko daan defee parce que affaire bi itam man maay président comité d'organisation waaye dafa am nag ñeneen ñi topp sama kaw muy ay pàcc pàcc ak ay am na président vraiment organisation bi aussi am na vice président restauration amna président ak présidente vraiment kenn ku groupe ba nga dank fa bu am solo nak ci biir groupe aussi man président lepp lo xamantene muy faal wa luñuy def ak dindi bu ci après ñu ko décoté ba ci anam yu gëna wax organisation bi yombul parce que ziar bu tollu ni bo ne wax ne dans la dans la région de Kaffrine mo bi mag ci ziar bi a ah, loolu moom pour nga gérer ko a jafe waaye dañuy góor góor rek ah jàpp si yàlla rek nit ñëpp jàpp ci daal kenn ku te jël ko au def ko sa yëf loolu moo tax wax dëgg yàlla à bu ñu ko defee rek dañ ci dañ ciy bu baax a baax ah li may tàggatoo di leen sant di leen gërëm baax a baax di rafetlu aussi seen taxawaay bu rafet bi ngeen taxawaay di ñu laaj lenn ci solos ziar bi kon loolu wax da yàlla ñu seen fay yàlla rek lañ leen bàyyee yal na yàlla fay te barkeel seen liggéey bu baax ngeen jëf